asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 15 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb tey fi mu xëy ñëw ci xëtam mu njëkk ñaari mbër yoo xam ne bëri nañu ñaari yoon muy Eumeu Sène ancien roi des arènes ak Gris Bordeaux troisième tigre de Fass mel ni ki nag ñoom ñaar tey ci léegi likaay bi xëy fësal ñaar ñoo xam ne ni ku ne xam na fa ñu jaar ci lamb ju metti tey ñu nekk ay xarit sunu lamb nag dafa ñëw tey ci ñoom ñaar ca la nga xam ne nii moom moo di daal diggante Pikine waa bi ak nga xam ne ni moom moo di Fass waa bi ci ay chiffres yoo xam ne ni ku ci nekk def nga ko ci lamb mel ni ki nag seeni at bu dee Eumeu seen la mu ngi ci 41 ans bu dee Gris Bordeaux mu ngi ci 40 ans ay victoire Gris Bordeaux 11 la ci am ay victoire Eumeu Sène am ci 10 défaite Gris Bordeaux am na ci 9 Eumeu Sène am ci 8 carrière bi nga xam ne nii nag moom mooy bu Gris Bordeaux boo xoolee 23 ans de carrière def na ko Eumeu Sène tamit yëglekaay bi xamal nañu ne moom mu ngi ci vingt 22 ans de carrière titre ANPS ka nga xam ne ni moom moo di roi des arènes Eumeu Sène am na ko nekk champion d'Afrique ci 17 ans moom mi nga xam ne moom mooy Eumeu Sène confrontation directe yi ñu def nag ku ci nekk ñoom ñaar daal daan nga sa morom sunu làmb xëy tey ñëw ci ñaari mbër yooyu nga xam ne nii daal fi mu nekk nii moom noonu la xëy tey dikk ci ñoom ci seenu taxawaay ci làmb ji ak seen carrière ak la ñu defante sunu làmb xëy ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey moom yëg likaay boobu làmb mu nga xëy tey dékk microm ka nga xam ne moom mooy entraîneur école de lutte di ngay luum ngay luum nag moom la mu xëy di wax wala que mu xëy di waxal rëg-rëg daal la jàpp ne metti gi gaa yi jàpp ci moom jàpp na ne gisu ko ca de pour rëg-rëg li nga xam ne nii daal moom la ngay luum jàpp mooy wàllum xeex moom rëg-rëg da caa limité maanaam ay capacité bari ca bari daal defu ko ca maanaam xeex daal kii di moom aay ca taxut mu def ko moom ngay lu moo xëy tey wax lu mel ne ki noonu te itam yemu ca na lépp lu ñu mën a def wala lépp loo xam ni nii waa école de Mor Fadam mën nañ ko def pour seen mbër mii di guy gi daan rëg-rëg moom nana buñ ca yeggee daanu ko def ngay lum moo xëy wax lu mel noonu ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey ci yëglikaay boobu conférence de presse bi nga xam ne ni Modou loo defoon na ko ba wax Ama Baldé na ko duma ñeexum ñebbe ñu doon xaar bu Ama Baldé nag sunu làmb xamal nañu ko doon xaar fi mu nekk nii booye boo xaddi wala nga xaar ba ca kanam a kanam li ko waral mooy coronavirus ba nga xam ne moo fi ñëw jaar fi rassemblement yak dajaloo ya ñu aaye ko tax na ba conférence de presse boobu nga xam ne Ama Baldé waroon na koo def daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dëgg reporter def nañ ko ko maanaam daal dàq nañ ko maanaam conférence de presse booba moom Ama Baldé nag adversaire ba mu war a bëreel moom di Modou Lo suñu làmb tey xëy na ñu xamal ca tout seeni déeg moo guy gi mi war a dajeek rëg-rëg ñoo bokk benn salle boo xam ne ni ca la ñuy ànd di entraîner suñu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag écrit ba nga xam ne moo nekk xam sa cosaan ci ginnaaw raay daal fi mu nekk nii daal bu bëggee dégg dëgg dimanche daal daje woon nanu waxtaan fi mu nekk daal li ñu bëgg mooy soutenir maanaam daal ñëpp ànd bokk benn buum ngir ñu soutenir la nga xam ne moom moo di xam sa cosaan mel ni ki nag ASC yaak e yëpp boole nañ leen ca rawatina ASC jàmmoo ba nga xam ne ni daal moo nekk ca zone 3 ba nga xam ne moo nekk ca Pikine ba tey sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii daal moom moo di Bira mi nga xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci moom ak li nga xam ne nii moo koy xaar mel ni ki daal mission ba daal li am ba des daal moom mission la boo xam ne daal nekkul mission boo xam ne bu yomba yomb la ba tey sunu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu bu ñu demee record moom nu ngi fay fekk la nga xam ne nii moom moo di ñoom Isabelle Sambok ñoom Adama Diatta ak i taxawaay ak nañu war a former ay ñeneen ñoo xam ne ni ay xale lan war a doon yëglikaay bi record a xëy ñëw wax na ko ba tey ci record tamit ñëw na ci réunion boo xam ne daal amoon na démb fa nga xam ne nii moom moo doon ca bureau CNC ba ki nag fi mu nekk daal document reprise du combat ya daal fi mu nekk ni CNC bi moom proposé na ab document boo xam ne daal ca war a jaar war ay sart yoo xam ne ngir làmb ja ñu mën caa dem wala boog ñu mën koo ubbi yëglikaay bi moo xëy wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag ñoom CNC booba tamit soo bëggee dégg dëgg daal ña nga xam ne nii ñoom ñoo di union francophone daal defal nañ leen ab la nga xam ne nii moom moo di ab invitation ba tey bu ñu demee fa nga xam ne nii tam moom moo di ca Equivox ak Lit TV fu nekk foofa tamit daa mel ni fi mu nekk nii sànni tam xeer ya metti na ginnaaw ba Bombardier ji génnee waxoon ca Equivox daal ne Balla Gaye ne mu ko dóor mu jébbulu Balla dem tontu na ko la olof ne tontu forox moom la Balla def Balla ne na ko yow benn dóoroo ma pour dóor amee maa la njëkk dóor te duma kuy jébbulu te jàppal ne dàqoo maa bëri gënoo maa dis loxo gënoo maa jot ay loxo te buñ ca yeggee da nga xam ne yow Bombardier ba si góor dong moo koy bay loolu mooy xekk nga xam ne ni moom moo di Balla Gaye 2 fa nga xam ne moo di ca Equivox mbokki internet yi noyooti naa leen ziarati leen ñaanalti leen jàmm saakooti ko ci yéen waaye du ma mën a euh, nuyoo bi ki ma si jiital mooy ki ma jàkkaar lool muy xulle mu du xulle doomu Saalum ah sama cameraman bu ñaawul bi maa ngi lay bëggee di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu internetu yëpp wala téléspectateurs yi waaw ñoom ci mën a doon rek ñu ngi leen di bëgg ak Vox Arena waaw parce que sotti ceeg def ci la di ñaanal ñëpp jàmm di wax nekk daal réew mi nu ne muy Sénégal yàlla na fi yàlla buur bi def jàmm tey nag bu nu xëyee tey ñëw ci sunu làmb sunu làmb nag moom tey xatam mu njëkk ñëm ci fesal mooy ñaar ñoo xam ne bëri nañ bëri yu méttee métti muy doomi Fass Gris Bordeaux ak Medina doomi Pikine Eumeu seen ñaar ñoo xam ne premier combat bu njëkk a bëri Gris da koo daan deuxième combat ba taroon lool lool xeex dem ardo gaañante dóorante ci biti ñu tagg leen ñu ñëw Eumeu Sène daan ko ñu jógee ci nag nekk ay xarit yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ci ay chiffres boo xoolee ci ay at Eumeu Sène moo jiitoo Gris benn at ci leenu yëglikaay bi wax 41 ans la am Gris mu ci 40 ans wàllum ay victoire ba tey boo xoolee Gris Bordeaux moo ci jiitu Eumeu Sène ba am na 11 victoire ci ni ko sunu lam chiffré Eumeu Sène am 10 ay défaite Gris moo ëppale mu ngi ci juróom-ñeent maanaam 9 carrière bi nga xam ne nii def nañ ko maanaam ci ay at ci làmb boo xoolee ba tey Gris moo jiitu ci làmb ji boo xoolee ak 23 ans de carrière ñaar fukki at ak ñett Eumeu Sène 22 ans ñaar fukki ba tey seen i bu dee ANPS la roi des arènes champion d'Afrique Eumeu Sène moo am na yooyu yëpp te Gris Bordeaux yooyu amu ci benn à l'âge de 17 ans la Eumeu Sène nekk champion d'Afrique ak équipe bu Sénégal léegi likaay bi ñëw na wax ñu ko nekk na roi des arènes gagné na trophée mooy confrontation directe yi ñu ku ci ne da nga gagné sa moroom benn mu mel ni kon ñoom ñaar boo xoolee seen carrière daal différence bi bëriwul waaw boo xoolee xëy na nag lenn lañ jàpp ne tey Eumeu seen rawee na ko Gris Bordeaux mooy li nga xam ne nii buñ defee uni bu demee au niveau international Eumeu seen décroché na fa médaille d'or champion d'Afrique Gris Bordeaux amul loolu bu ñëwee trophée ANPS Eumeu seen gagné na ko gisuñu ko ci palmarès u Gris bu ñëwee tamit roi des arènes bi nga xam ne moom la ñëpp bëgg a jël Gris Bordeaux bokk ci ñi ko bëgg a jël te boobu tey mënu cee jot Eumeu Sène gagné na ko te Gris gagné ko kon foofu kon li ngay jàpp mooy carrière yi boo ko xoolee wax dëgg yàlla Eumeu Sène moo jiitu Gris Bordeaux loolu moom mooy li am waaw donte te boo xoolee ci seen i daje ku ne da nga daan sa morom kon foofu ba tey mooy li fa am ñu ñaar ñoo xam ne tamit comme li ma waxoon rek laay wax ay exemple lañ tey ci làmb parce que li tax mooy yàgg nañu ci carrière u làmb parce que 22 ans 23 ans de carrière loolu xule du lu tuuti te ba tey ngay entraîné boo ñëwee nekk ci forme du exister loolu boo amul hygiène de vie doo ko def kon ñaar nañ ñoo xam ne tamit vraiment am nañ mérite tey ñu ñu jara roy la ci wàllum làmb bi nga xam ni moom lañ nekk la fa nee na rëg-rëg wàllum xeex nii ngay luum nee na rëg-rëg amu ci dansé xulle nee maanaam daal lam ci am ci capacité bariwul nee na tamit ñoom lépp lu ñu mën danañ ko def pour daan ko ah mel ne ki nag loolu waxi entraîneur la moom mi jàngat xool mbër mi ba xam ne kii am na fu mu limité loolu moom dañuy ñaan yàlla yegg ca bis ba ak rek ñu xool ndax rëg-rëg limité na ci xeex comme ni ko ngay lu mu waxe ndax dañuy xeex ak moom wala dañuy ñëw samp ak moom bëree waaye loo ci mën a dégg diggante guy gi ak rëg-rëg moom lu ma te itam bëgg na dugg tey ca mag ña te mag ña tey bokk na ci bunt bi mu fëgg nii bu ko ubbee dajje ko jàll muy guy gi ah bañ ko ci mag ñi dooteen xaw a jafe waaye ndax dina ko jàll loolooy mbir bi ndax rëg guy gi ku ne xam na ne mbër mu gëm li muy def la moo ko indi fi mu nekkin te itam nag ah yàgg nañu ko coow mbër mu ndaw wala xale boog wala ku ñëmu ngay jóg mu ne ko ndax digganteem ak Ama Baldé ñëpp a fatale ko fàttaliku mu nekk combat boo xam ne ni bu nar a metti lay doon ba tey bu nu continuer moom Ama Baldé moom ñu tudd conférence de presse boo xam ne waroon na koo def waaye coronavirus baa ñëw ginnaaw ba muudu adversaire am defee mu waroon def corona ba tax na loolu daal ne nañ maanaam reporté nañ ko muy loo xam ne vraiment daal lañ doon wax la ñuy wax rek làmb ji daal fi mu nekk ni moom war nañ koo utal solution te loolu duñu ko wax kenn ku dul état bi parce que tamit mënuñoo toog war a bëre wala war a def ay yëngu-yëngu làmb ñu ne duñ ko def mais nañ ko def ci façon boo xam ne nii day nekk waxtaan boo xam ne diggante médecin yi lay doon ak wàllum waa ministère de la santé ministère de l' ak ministère des sports ak kuréelu làmb yi ñu xool nu ñu ciy demee ak promoteurs yi parce que tamit metti na trop trop trop wax dëgg yàlla ba tey ci biir tuus bi gis nañ fa loo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ci muy Gouye ak Modou boo xam ne sunu làmba nu ko wax ne na ñoom ñaar ñoo bokk salle bu ñu entraîné waaw loolu day moom mën naa ne parce que li tax mooy mbëri yàgg nañuy bokk ay salle ay a sax gis nañ leen ah piscine olympique bi lañ doon entraîné ci point ñoom ñaar fa doon daje waaw te boobu ñoo war a bëree kon loolu yàgg naa am ci làmb maanaam borom saal bi mu day liggéey rek bu ñu fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ci record record boo xam ne nii ñëw na tey ci ñoom Isabelle Adama Diatta seen i taxawaay yi ñu war a am ak yooyu ak CNG bi nga xam ne nii daal proposé na nu ñuy def pour pour pour reprise su combat yi defe naa moom mooy li ñu wax rek warees na ut solution daal parce que nag mënuñoo mi liy taxaw dina bëri te làmb ak football ak volleyball ak lépp ci yam lu ci ne bu taxawee rek dina am ñu muy gàllankoor loolu ba tey ñu ngi ko gis fi nga xam ne nii moom moo di ci journal record waaw ba tey tamit ak euh, l'union francophone bi nga xam ne ñoom ñoo war a daral ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa CNG ba tey record ñëw na ci tey euh, Equivox bu ñu fa demee Bombardier noonu dama dóor Balla mu jébbalu Balla ne na ko du ma koy jébbalu tontu na ko démb nee na du ma koy jébbalu te buñ ca yeggee da nga xam ne du ma koy jébbalu te nee na moom xamuñu ñun li Bombardier wax waaye moom Balla xam na li Bombardier wax Bombardier xam na li Balla wax waaw ne Balla moo tax daal foofu ab defante nga fa mel ni fan yi moom combat yi tamit yëngu na xule xule di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu suñu mbokku internautes yëpp di leen ñaanal jàmm du ma fàtte benn internaute fans club fan fans club Equivox ak Babacar yéen ñëpp ñëpp maa ngi leen di bëggee xam nga di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit waa Bawol waa Sine waa Saloum waa Ndiambour waa Kajoor waa Casamance waa Fuuta kon ma nuyu waa Sénégal yépp rek di ñaan si jàmm am Sénégal di ko ñaan si àddina bi waaye ki nga xam ne nii moom moo di Fallou Nia Ndongo Fall Italie ah ñoom ñëpp suñ Fallou seen sama rakk sama dëkkandoo ci ak yaay nag depuis ca Brésil maa ngi koy bëggee moom tamit di nuyu ñëpp xulle di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di wax na Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ah di nuyu sama seex bi sama rakk sama xarit Lamine Seck yàlla na jàmm bi yàgg yàlla na jàmmam yàgg yàlla na jàmmam yàgg barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam